aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan télévision bu mag bii di RTT TV ñu ngi leen di nuyu ci seen jotaay yu am solo yi nga xam ni moom lañ leen daan indil ci waajtaayu bisu diine yi nga xam ni ñooy xew ci àdduna bi ngeen xam ni kat am na xew-xew bu am solo bu nu dëgmal di waajtaayu daaru musti màggalu maam Thierno Ibra Faati mi nga xam ni rakki sëriñ Touba la waaye di jàmbaar di di ko amoon taxawaay ci yoon wi euh, ñu jub bisam ni ko RTT TV di defee saa su nekk rek di leen indil jotaay yu am solo yooyu moom lañu leen fas yéenee ànd ak yéen tey ñu fàttaliku góor yàlla gu am solo googu fàttaliku jàmbaar fàttaliku koo xam ni histoire yoonu murit fes na ci lool ci ay taxawaay yu am solo yoo xam ni. lépp fas yéene nañ ko waxtaane tey ci seen spécial wàccaayu màggalu Daaru mussi nuyu sëriñ Amdi Modou Mbend Fall xalif général des Baye Fall siyaare ko bu baax siyaare njaboot gi yëpp waaye ñu nuyu mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp sëriñ Mbay Si Mansour xalif général de Tidiane ñu siyaare ko bu baax jox ko wàccuwaayam nuyu ko nuyu njaboot gi yëpp waaye ñëw fii ci Thiès nuyu sëriñ Muniru Njegeen al Khalifa siyaare ko bu baax siyaare mbooleem njaboot gi yëpp ñaan ci barkeb sëñ Tuubaa li ñuy liggéey lislaam yàlla nañ ko àggale ak seen sago euh, ñu siyaare bu baax njabootuk sëriñ saal ture Touré ko sëriñ bi sunu borom ñaan sunu borom mu yokk ay leeram te taasuñu ci barkeem waaye ñu nuyu bu baax ki nga xam ne mooy ab taawam di xalifaam di sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré euh, wuutu ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la doon liggéey lislaam moom it ñu siyaare ko siyaare njaboot gi yëpp nuyu murid yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès bi yëpp bàyyiwuñ ci kenn kilifa diine yëpp ñu ngi leen di nuyu nuyu jëwriñu daayira rey nuyu ñi nga xam ni it euh, ñooy seetaan saa su nekk télévision bi nga xam ne mooy RTT TV ñu amaan mbégte bu baax saa bu xew-xewul islaam amee rek ñu ànd ko ak yéen waaye waxtaane ki nga xam ni moo xewle bu yàggul dara rek ànd nañu ak yéen ci seen jotaayu waajtaayu Kazu Rajab Euh, ngeen bëggee ko lool ko defee loolu rek moo sabab sabab daje bii tey incha allahu rabbi ñu dajeeg jëwriñ yi nga xam ni tubaarkàl la xam nañ leen ci yoon wi euh, sëriñ Xaadim Sàmm di conférencier bu am solo di koo xam ni tubaarkàl la liggéey bu am solo lay liggéey ci yoon wi ci waxtaane sëriñ bi sëriñ Modou Fall di jànkatu xasida moom it Modou Xabbaan Fall waaye moom it di jàmbaar lool ci xasida yi xam naa ne foofu rek lañuy ñuy moom ci xasida yi euh, mu ubbil ñu jotaay bi sëriñ Modou ñu bàyyi la nga bëggal mbokk yi ci xasida yi incha allah bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman hmm. alhamdulillahi alkarimi zilminan ala istiqaali bilfurudin wa sunan الحمد لله الكريم ذي المنن على استقال بالفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على استقال بالفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن بهم نفى معاقني وقادني إليه بالتعلي من بعد ما قد زب بالتعلي وجرني في العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم صلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن نتبعا على الذي من بمرادي ارتدى في السر والجهر يكون معتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالكي رفيعي محمد خير الورى الشفيع وآله وسابه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب خيرك في الدارين لا أهاب حكما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لم لما أجب صرواك فجدت لليوم بخير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 jiital si ziar bi ak nuyoo bi di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha. Mhm. yàlla na suñ borom yàggal ko fi lool. amiin yaa di ñaanal tamit sëñ Modou Amdi Mbenda. di ziare tamit sëriñ Cheikh di taawu sëriñ Saliou Touré. Mhm. sëriñ Cheikh Ahmad Bamba Touré. di ziare tamit bépp jullit boo xam ni yaa ngi teewlu liggéey bi. Mhm. di ziare mbokki taalibe yi nga xamante ni ñoom lañ fekk si fii. macha allah euh, di ci jiital suñu jëwriñ sëñ xaadim sumaare mhm. ak sëriñ xaadim sàmb sëñ xaadim sàmb nga xamante ni ñoo feggoo tey jii ci mhm. jataay bi mhm. ni ma koy waxee nag RTT TV moom day sama tele wallaay ndax def nañ jataay bu yaatu ak man. day mel ni du du njël benn. wallaay wallaay waaw ñuy ñaan tamit émission bi nga xamante ni ñu ngi koy def. lépp luñ ci def rek mu doon ay njariñ. te bis bi nga xamante ni moom lañ dëgmal tamit muy màggalu Daaru Musti mhm. suñu borom yëpp ñu ci jàmm ñu àgg ci jàmm mhm. kon ñu ngi jéglu bu baax di wàcce kàddu gi foofu macha allah barke borom Tuubaa macha allah jërëjëf Serigne Modou Fall Serigne Modou Xaban Fall tubaarkàlla ci xasida yi am na solo waaye moom it muy jëmm ju am solo euh, nit ku euh, taxaw xasida yi la waaye ku wattu boppam la euh, tubaarkàlla kër gi këram la tey du njëlbeen rek la fi ñëw la fi soog a ñëw ñëwoon na fi ay yoon ñu am mbégte loolu sax saa bu ñu sàkkoo ci moom jotaay rek mu yombal ko lool li muy xat-xat ndax ku yëngatu foofu ci marché Moussanté ñu bokk fa nekk bu ko defee ñu ngi koy ñaanal tawféex bu baax te am mbégte ci fekk si ñuy fekk si ci jotaay bi bu ko defee ñu ngi nuyu jëwrin yi nga xam ni euh, saa su nekk ñu ngi seetaan télévision bii di RTT TV ku ci mel ni Serigne Bara Cissé nekk fii ci jaxaw di Serigne daara di Serigne euh, bu am taxawaay ci lislaam waaye am ko ci yoonu murit ñu ngi koy nuyu bu baax Euh, jotaayu tey bi nag moom suñu xel day dem ci Serigne Mahamadou Niang euh, mi nga xam ne jànkatu xasida la waaye di taalibe borom daaru bëgg lool borom daaru ñu ngi koy nuyu bu baax te di ko ziar muy suñu jëwrin di suñu xarit euh, nuyu bu baax Serigne Aliou Thioub moom it tubarkal la di jëwrin ci yoon wi waaye di nekk taalibe borom daaru ñu siyaare ko bu baax Thioub jox ko waayam mu ngi fii ci jaxaaw ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu njaboot gi yëpp bu ko defee sëñ Xaadim ñu ngi lay nuyu te di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi auzu billahi samin alim mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin wa zakkilu bi waftaxan rabbiliya farxan mubinan la yurali misliya waliyab xasaxatan wa nuura wa fi siraati yasiril murura wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir waxal bi arsida barkeb seyxul xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mm-hmm. ñu ngi leen nuyu nuyub jullit buy nuyu ay mbokki jullitam nuyub taalibe buy nuyu ay mbokki taalibeem mm-hmm. di jiital si nuyoo bi sunu yaakaar ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa Basiir mm-hmm. di ñaan suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram ba lim naat pour liggéeyal ko Seexul Xadiim mu def ci lu kawe njortam. amiin yaa rabbi. di nuyu mboolem koo xamante ne yaa ngi topp télé bi rek ak émission bi. Hmm. ñu ngi lay nuyu baax te di la ziar di jël nuyoo kër gi di ko teg ci loxol sunu soppe suñu xarit. Hmm. muy sunu tërandoo Serigne Khadim mu tegal ñu ko ci mbooleem koo xam ne rek fekk nañ ko fii ci bërëb bi. Mm-hmm. di nuy bu baax sunu mbokkum taalibe bii nga xam ni moom la ñu feggool. Mm-hmm. nga xam ni dañuy faral di daje ci barab yi lu baree bari. muy jànkatu xasida di ku baax. sëñ Modou Fall muy sëñ Modou maa ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare bu baax. Mm-hmm. di kontaan bu baax si njàng mi. di tuubal mboolem koo xam ni yaa ngi dégg kàddu gi rek ñu ngi lay tuubal bu baax di am kontaante bu baax ci teewu ànd ak yéen émission bi mm-hmm. di ko ànd ak sama soppe sama xarit muy Serigne Khadim wallaay ndeysaan kàddu gi ba mu ak ci waat ak jàmm jërëjëf sëñ Khadim tubaarkal la wax nga dëgg de sama soppee sama xarit la moom moom euh, diir bu yàgg wax dëgg yàlla ñu jàppante bëggante soppante ngir jëmi sañ ci waaji waaye mu nekk jàmbaar ma nawloo ko lool nag tubaarkal la sëñ Khadim bëgg nañ lool ci wuy si bi nga wuy si bi ndax xam nañ ni xat-xat yi bari na waaye tubaarkaal la jox nga ñu yitte waaw bu ko defee rek ñu ngi nuyu bu baax euh, ki nga xam ni mooy euh, Serigne Serigne Alioune Thioub waxoon naa ko sànq xanaa ñu nuyu waat ko rek ndax émission bi tey moom xam naa ni mhm. dana ci bég lool waaye nuyu alaaji Yamar yàgg euh, yàgg a baax moom it macha allah day seetaan jotaay yi di ñu woo téléphone waaw di ñu soññ lool. bu ko defee rek tey maam Thierno Birahim lañ fas yéene waxtaan ngir waaj bisam bi nga xam ni ci lañ koy fàttaliku. Euh, maam Thierno Ibrahim nag mu ngi gane jamono fi nga xam ne mooy Poroxaan mm-hmm. ci weeru gàmmu fukki fan ak juróom euh, di góor yàlla gu mag waaye di rakki sëriñ Touba euh, bu ñu bokk benn wayjur wu góor maam Mor Anta Sali di wayjuram wu góor soxna Faat Isa di wayjuram wu jigéen moom nag muy jàmbaar lool taxaw Serigne bi ci biir ak ci biti wax nañ ni Serigne Moussa Ka seede na ko ci bi mu nekkee ci biiru yaayam. Euh, seede ni kiikat bu ganee jamono bokk na ci ci ñi nga xam ni danañ ànd ak sëriñ bi liggéeyam loolu yi noonu la ko àndeek sëriñ bi ba bi seen wayjur wu góor yu làqoo wax nañ ci ay seede ni sëriñ bu mag bi wax waxal na boppam ni Birahim moom mag moom du ñu ñun moom tuwarkal la dond leneen lu ñuy seddu nañ ñu jox kaamil te kaamil alxuraan boobu mooy li ñu donde ci seen way jur wu tedd wa di Mamour Anta Sali xam naa ci tàmbali waxtaan woowu rek li ñuy ubbil buntu sëñ Xaadim waaye moom dana ci ñëw lu gën a yaatu kan mooy euh, maam Thierno Ibrahim Ndaamal Daaru mi nga xam ni euh, moom lañ fas yéene waxtaane tey. jërëjëf sëñ Xaadim ci laaj bu am solo boobu nga xam ni laaj nga ko. Mm-hmm. nga comme ni nga ko waxee ñuy waxtaanee ku baax. ndeysaan di waxtaanee jàmbaar. Mm-hmm. di waxtaanee ku am diine. Mm-hmm. waaye di waxtaanee borom ngor. koo xam ni lislaam doodu ko fàtte. yoonu murit dootu ko fàtte. ngir liggéeyam bu rëy boo xam ni liggéey na ko sëñ xaadim ahmad xaafis ibrahim daa wax ni nit koo gis nit ñi ñaari xaaj leen annaasu sinfaani mawta fi xayaatihim wa axaruna bi batnil ardi axyaaw am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaw suuf di dund waaye amul yàlla benn njariñ am na ñoo xam ne génn nañ jamono bu yàgg ba tey ñu ngi leen di fàttaliku Ceerno Birahim ñooñu ci la bokk mhm. bokk ci ñi nga xam ni suuf dañ koy jooy ba tey ngir ñàkk gin ko ñàkk asamaan di ko jooy ngir ñàkk gën ko ñàkk ndax suuf da leen di jooy ñoom ñu baax ñi ndax alxuraan moo wax ne firawna ak waa këram suuf du leen jooy ngir jëf ju bon duñ fi nekkee woon mhm. fa ma bakkat alayhimu samaau wal ardu wa ma kaanu munzarin mhm. waaye ñi nga xam ne jëf ju baax lañ fi nekkee woon ba tàggoo ñoo ñooñu suuf da leen di jooy asamaan di leen di jooy mhm. lan moo tax suuf di leen jooy ñu ne ay jaamu yàlla yu tedd lañ woon mm-hmm. kaanu ibadan mm-hmm. bi taatin li rabbihim mm-hmm. wa kaana jalla lakum rabban bi minnaati ñooñu kat mooy ñi nga xam ne tax suuf di leen jooy bu guddi jotee ba ku ci nekk di xëcc sa mbalaan ñoom ñu nga ca derbee jaamu yàlla tajful madajia fi layli junubuhumu naasina salma wa layla bil busaaraati lu tax fa xaysuma barazat layla bi bahajatiha anha tawallaw ila al mawla bi taati hmm. yansawna layla wa suada fi qiyaamihim mustaanisina bi azkarin wa ayaati hmm. kon ñooñu loolu moo tax suuf di leen jooy ngir jaamu yàlla goo xam ni nekkoon nañ ko bi hmm. maam Cerno rek bokk ci jàmbaar yooyu liggéeyal yàlla waaye liggéeyal jàmbaar ju am gërëmal yàlla di seexu Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu doon rakk ci Sëriñ Tuuba rakk ju ko jige lool sa si moom moom Thierno Birahim daamal daaru ñu bokk benn wayjur moo xaadimu rasuul seen wayjur di maam Mor Anta Sali mi nga xam ne Serigne Touba nee na maam Mor Anta ci jamonoom moo doonoon xutbub jamonoom Serigne Touba wax na ko. day xool bàyyam ba ci yàgg mu ne ko ayaa man baaxal axkaami yaa xawsu dilliili yaa xarmu yaa naamuusu yaa xutba zal jiili. Seexul Xadiim moo ko wax bàyyam. Mm-hmm. ni ko yow yaay ki nga xam ne yaay ca xutbub jamono yow Maam Mor Anta mm-hmm. kon Maam Mor mooy wuy juru xaadim rasul waaye mooy wuy juru Maam Cerno Birahim ndaamal daaru way juróom bu jigéen di ko baax mm-hmm. di soxna faati isa soxna faati isa mi nga xam ne sëñ Tuubaa rek la bëggoon ba sëñ Tuubaa war a ne kéemtaan gu rëy ci soxna faati isa mm-hmm. ngir lan wax nañu ba bi mu génnee jamono moom soxna Faat Isa sëñ Tuubaa maa ngi door a ñàkk ndey waaw moom rek la mu sa yor ci biir bàmmeel nday cerno sëñ Tuubaa yenent bi sallallahu alayhi téere yi dàkkoon nañu kenn dina mu sa yor ci biir bàmmeel muy wayjuru Seydina Aliin mm-hmm. muy soxna Faatimatu bintu Asadin ak nduroog soxna Faat Isa Cerno Birahim rekk la ci borom Touba mais Ali rekk la ci borom tu rekk la ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ba muy jóge Màkka di dem Madina Seydina Ali la dénkoon gannaawam mhm. Sëriñ tubaa bi muy jóge ci jéeri ji dem ci géej gi Cerno Birahim la dénkoon gannaawam mhm. bi soxna Faat Isa ndeyi Cerno daa defaral Sëñ Tuubaa ab laax Sëñ Tuubaa ni ko loo ci bëgg mu ne ko Mbàkke leen dong la ragal muy lëndëmaa yu bàmmeel Sëriñ Tuubaa ndax su ma la sa tàbbaleel sa bopp da nga ko ñeme mu ne ko waaw Mbàkke danaa ko ñeme Sëñ Tuubaa ni ko maa la ciy tàbbaleel sa bopp loola war a bi sëñ Tuubaa nekk ci géej gi mhm. tubaab bi wax ni sëñ Tuubaa génn na jamono ñoom Thierno Birahim di bàgg di dem ak a ñëw ba mhm. soxna Faati Isa gis leen laaj leen lu xew Thierno am na lu ngeen nëbb ñu ne ko sama mag ji baax ji dañ wax ni newatu fi mu ni kooku day lam mu lu mu mus a wax mhm. dana ko def kon Seyxul Xadim moo ngi dund te bis boo déyaaleeg moom da nga ci am lu la leer te moom waxoon ni moo may yor ci biir bàmmeel te lu ma gëm la bali sëñ Tuubaa ñibbisi la 11 novembre 1902 dem na fi Louga dem na fi Ndar dem na fi bari jàmm siise dem fi Sanusi dem na fi ñaxal juróom fan ci weeru koor la dugg Sanusi war weeru ba mu jeex mu génne ñaxal dem Mbàkke Kajoor génne Mbàkke Kajoor siyaare baayam si Ibra Mbàkke Kajoor génne Mbàkke Kajoor dem Daaru Salaam ganale ko maam Cheikh Anta mu génne Daaru Salaam dem Daaru Marnaan ñu kër gi lakk mu yónnee la ay lal ñu làmb ko jàpp ne ay fetal la mu def tukkib jéeri ji dem gànnaar xumaak sarsaara sawatul ma biirul xayri 1907 mu ñëw ci yéen jëla président surveillé ci la waxee wax leen ma wóol leen ma soxna Fatou Issa waaw ba muy dem dee kumpa la de mhm. alxuraan daa wax ne wa maa tadri nafsin bi ay ardin tamuutu mhm. doomu aadama xamul ci ban suuf lay faatu waaye loolu nitu kase ndeysaan waaye soxna si ba ko sëñ Tuubaa ba muy dem dañ damay faatu ji. allahu akbar pourtant fa la faatoo. ñu defar ko yëkkati jaag bi jaag bi lànk ni du jóg ñu wax ko sëñ Tuubaa mu ni wax na dëgg maa ko waxoon ne may jàpp sab jaag ci biir bàmmeel. sëñ Tuubaa jàpp ci jaag bi moo dugal boppam ci biir moo ko nangu te la génne wax waxam ju siiw jooju maa ngi doog ñàkk ndey man Xaadimu Rasuul. allahu kon soxna Fatou Issa. Mm-hmm. kooku mooy ndey maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru. wax nga ko léegi mu gën a jamono mm-hmm. fukki fan ak juróom bisub alxames fukki fan ak juróom ci mm-hmm. weeru gàmm mm-hmm. tombe nag 1865 am na ñu ma dégg fan yi ñuy wax 1862 boobu wérul 1862 la bu fekkee 62 la kon da nga naan xuru mbàkk la gën a jamono bu dee 63 la da nga naan xuru mbàkk la gën a jamono te nag wax nga ko léegi poroxaan la gën a jamono te bi muy gën a jamono la bataille de Pathé Badiane la woon 1865 entrepreneur la paraat ak Maba Jaxu Ba seen xeex boobu. Mm-hmm. nga xam ci la Birahim bi muy gën a jamono bal yaa ngi tàkk. moo tax bañ koy jox aw tur dañ ko yóbbu ba moom Cerno Birahim ngir bi mu gënee jamono weer bi mu gënee nga gis waa Daarul Muxti fu ñu génn di téere ay bal ak ndax seen a jamono bal ah, ba Jaabakunda ci lañ ko joxee aw bari nag boo doon laaj maam Cerno Sëñ Xaadim turam original xamuñu ko mm-hmm. turam mmh. original. Mmh. xamuñu ko de ñu bari doon laajee danaa la maam Thierno ndaamal daaru. Mmh. déedéet maam Thierno li muy firi ci tukulóor mooy sëriñ. Thierno li muy firi ci tukulóor. mooy sëriñ mooy sëriñ. Thierno Thierno. waaye nag turam original bi ko bàyyam tuddee mooy Ibra góor gi Ibrahima Saw mi jàngal Mamour Anta Sali moom la ko bàyyam tuddee mooy Ibrahima. Ibrahima kon Ibrahima Mbàkke la tudd. waaw sëñ Moussa Ka way wi ñaari tur yëpp indi na ko ci benn way bi Thierno làqo mu ni jant a ngi jooy. Thierno Ibrahima. waaw weer a ngi jooy laylan badaa bahima. sa mooma at sunu weeru koor wa jooy na. naafila wunu keroog ngir taw ba sóob na. ma way fi saandaa mala sancoon daaru. Hmm. ca alsasin ca yàlla maa ko waaru. waarooti naa waaru gu raw gawoon daaw. jommetti naa mais mbir a rëy nee neen waaw Cerno Birahim daamal daaru allahu akbar kon 1865 <laughs> ca la gën a jamono Cerno est-ce que avant muy gën a jamono sëñ Touba xam nga li gën a mooy ñu bari dañoo ñëw ci sëñ Touba mhm. mais sëñ Touba sàkku Cerno Birahim ñëw allahu ndax yeneen boo ci gis baa wala boo ci gis am na kuy jàppale am na ku nekk ci wetam di ko jàppale mhm. soxna Fatou Issa sa jur wii ki ci biiram bi bu dee góor la na nga mm. xam ne mooy ki lay jàppale sab liggéey jërëjëf na nga xam ne mooy ki jàppale sab liggéey ah Siré Mari Gouré mi ngi joxe mooy ki lay jàppale sab liggéey macha allah yàlla na la yomb barke si Ahmadou Bamba borom ëttu nabi waaw <laughs> ah. na xam ne ki ci biiram bu dee góor la ah. nanga nga xam ne mooy ki lay jàppale sa liggéey bi ndeysaan ndeke booba sëñ Tuubaa mu ngi ñaan sëñ Moussa Ka wax na ko mm-hmm. fekkoon na Cheikh Bamba di ñaan buur yàlla mm-hmm. jàmbaar ju askanoo ca Mbàkke Bàlla est moo tax bi mu déggee ñu ne yeewiku na. Mhm. ñu xool ko muy góor fekk na sëriñ Touba di jàng alxuraan ba ak ci suuratul xasas. Mhm. bi mu ak cee nett ci ay bii ma lay wax wa aqi Haaruna. Mhm. afsaxu minni lisaanan arsilhu ma'i ci lañ ko déclaré ne gan gane jamono mu daw wër Cerno Birahim juróom-ñaari cër yëpp bindal ko sab'ul muntiyaat juróom-ñaari ay yi nga xam ne kooku bindal saytaan du man ci moom dara moom la bindal Cerno Birahim mooy ndombal baat gi mu kon bindum sëñ Tuubaa la. Allahu moo tax sëñ Moussa Ka ci la sukkandiku wax nii bu sëñ bu Bàmba doon Moussa. Hmm. gis kon wa aqi Haaruna. Hmm. afsaxu minni lisaanan Moussa ko ñaanoon. Hmm. moo tax sëñ Moussa Ka su Bàmba doon Moussa. mu doon Haaruna ndax yoo yële mbir. ak yële mbir ndoroo kon mu gane jamono ci poroxaan. <laughs> Uh-huh. moom maam Cheikh Anta yëpp poroxaan la ñu gane jamono. Mm-hmm. maam Cheikh Anta maam Thierno Birahim Serigne Afia ñoom ñëpp poroxaan dañu gën a jamono ndax xare bii ma la wax ci 1865 ca la Thierno a jamono di jàmbaar lool sëñ Tuubaa ne lu ne maa ko def ci Thierno ba mu des fit gi ak lu ne maa ko def ci Thierno ba mu des fit ak njàmbaar gi allahu akbar mu doon ku bari xam-xam fees dell mbooleem fu ñuy jaarale doomi soxna jaarale nañ ko fa te lu gën a yéeme mooy taxaw gi mu taxawu sëñ Tuba wax nga ko léegi bi seen bàyyi génne jamono mii miiras Mamour Anta Sali sëñ Tuba dañu mag cerno amuñu cër man sama cër mooy alxuraan ak cerno Birahim cerno Birahim nag ab cëram mooy sama mag ju baax ji si Ahmadu Bamba Xaadim Rasul sëñ Xaadim sëñ Tuba du sàmb alaar déedéet du sàmm alaar déedéet xam ku sàmm mooy defar sa defar jàmbur bàyyi say uh-huh. Moussa Ka dani ko àll kër uh-huh. jaam ak gor uh-huh. ceddoog sëriñ buur ak ki dak mbokk ak ki jàmbur ñépp a jag jaaraama daam ci xarnu bi nit ku ñuul ak nit ku weex askan wudul jeex fu na daam def na fa ab seex bu mën a yar waa xarnu bi xaadimu rasul sëñ Mbay Jaxate feelu ko ni ko defar ngaw mbokk defar aw jàmbur ba ñëpp jag nga jàpp sa njàmbur xoolal rakkam bii Thierno <laughs> Birahim rakkam la uh-huh. sëñ Tuubaa ko defar maam Cheikh Anta Mbacke rakkam la uh-huh. sëriñ Tuubaa ko defar sëriñ Afia rakkam la uh-huh. moo ko defar sëñ Cheikh Coro muy ay mbokk waaw sëñ Cheikh Coro sëñ Balla Coro Ahmadou maam Mor Jaara borom saam ba ci sëñ Mbacke Anta mi faatoo Njaañ lépp borom Tuubaa la moo leen defar waaw xam nga sëñ Mbacke Anta nga baal ma ma dugg tuut sëñ Mbacke Anta mooy taawu Mamour Anta Seck ci soxna Anta Ndiaye. waaye maam Mor Jaara mooy taawub maam Jaara ci borom ci maam Mor Anta Sali. Mm-hmm. li tax mu teel a dem sëñ Mbàkke Anta Njaañ gi ci Louga lañ ko denc. Mm-hmm. xam nga tax génn jamono mm-hmm. dañuy sëñ Tuubaa ñaari jant xaj ñu seen asamaan ñu ñaar faaw kenn génn jamono. waaye kooku yéeme na de. yéeme na lool ñaari jant. xaj ñu ci seen asamaan ñun ñaar faaw kenn. génn jamono kenn génn man jant buy suux laa te yow jant buy fenk nga. bi timis jotee ci la ko am soj laal njëkk a yaakaar day kaaf ndeke dem na. ñu denc ko ci njaañ gi ci Louga soxna samu yoroon di soxna ja Touré moom lañ jox borom Touba mu taawloo ci soxna Faat Ja Mbàkke mii taaw si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon mbokk yëpp defar na leen. Mhm. banu jag. Mhm. moom Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul kon sëñ Tuubaa du sàmb alaar. du sàmb lu nekk ci moom ba ba ka maam Thierno li sàkkatal ca Mbàkke Kajoor amagul fukki at. Mhm. sëñ Moussa Ka nii moo njëkk a sàkkatal Cheikh Bamba. ca Mbàkke Kajoor bul ko enquête. mu am askan loo xam moom la bokkal gis na maam Thierno. Mm-hmm. Ahmadou Dame Faty mu mag. Mm-hmm. soxna Aminta Mbacke. Mm-hmm. Fatimatu Bintu Rasul Mbacke. ak maam Thierno Birahim Mbacke ñoo bokku ndey ak baay. lu mat a xam la. Ahmadou Dame Faty avant muy samp kër ca la génn jamono Mbacke Bawol lañ ko denc. soxna Aminta Mbacke mu bokk ak Thierno Birahim ndey ak baay moom lañ jox Serigne Dame Abdourahmane Lo. mu am ca soxna Aminata Lo mhm. ñu jël soxna Aminata Lo jox sëñ Modou Moustapha Mbacke mu am ci soxna Mariyamu ak sëñ Mbacke Madina. est-ce que. Fatimatu Bintu Rasool moom lañ jox sëñ Mandumbe Mbacke mu am ci Serigne Modou Xabaar. est kon ñii la bokkal. Mhm. sëñ Tuubaa lu ne ci ñoom Xaadim Rasool moom moo ko ci def. muy ko bari xam-xam. Mhm. di ko tabe. di ko sàmm. sëñ Moussa Ka nee na. Cerno Birahim. Bàmbaa ko jàngal Bàmbaa ko yar. allahu jàng ak liggéey la boole ba far am ndam. est lu ne ci moom. sëñ Tuubaa lu dul ngor gi ak fit gi. maa ko def ci Cerno Birahim Ndaamal Daaru. Mm-hmm. kon Bàmbaa ko jàngal. Mm-hmm. Bàmbaa ko yar. Mm-hmm. jàng ak liggéey la boole ba am ndam. te li ci gën a yéeme dëkk bu sëñ Tuubaa sanc baa ku mu am Cerno fa dem ba pare. sëñ Tuubaa du faa ñëw. ba ci Daaru Salaam. moo ko sancal sëñ Tuubaa ba pare feral sëñ ma est xam nga sëñ Massa Mbaye Thiat Thierno hmm. Birame ni ko màggee presque àgg na ci 17 ans. Hmm. sëñ Moussa Ka nee na. Hmm. Daaru Salaam Thierno ko sancal Bamba. ca Dasasin feral Serigne ma sàmba nga Daaru Salaam. Thierno ko sancal Bamba. ca Dasasin feral Serigne Massamba. waaw kon sëñ Touba ko jàngal lu ne ci moom. ginnaaw maam as jàng alxuraan sëñ Touba ko jàngalaat. ba lu ne ci moom moo ko ci def am na ku ñuy wax Serigne Ñang ca bari ñi jàngalaat na ko tamit alxuraan am ku ñuy wax euh, koo xam ni moo ko jàngal xaadima jaxate kala moo ko jàngal lu ñuy wax xam-xamu moo ko jàngal ak li ñuy wax fiq ak tawxiit sëriñ moor biraama jaxate nag moo ko jàngal ilmul balaaxa ba maam Thierno fees dell xam-xam ah, xam nga xam-xamu maam Thierno ni nga ko mën a xamee mooy ñi raw ci réew mi moo leen jàngal mm-hmm. ku jàngal sëñ Modou Moustapha mm-hmm. ku jàngal sëñ Fallou mm-hmm. ku jàngal sëñ Baara mm-hmm. ku jàngal sëñ Cheikh Thioro mm-hmm. kii yaa raw ci réew mi moo fi raw moo daan wax ne sunu baay Thierno mm-hmm. moo ñu jàngal bañ ñi ar mm-hmm. mu yar ñu bañ waaye mu yee ñu ban ñu jar <laughs> est-ce que <laughs> dégg nga ko <laughs> sëñ yëpp lakkoon su ma ko bindul eh. sëñ Modou Bousso Dieng bind ko eh. sëñ Mbacke Bousso bind ko kenn du ko bind kooku nag tax mu man ko danaan wax ne sunu baay Thierno moo ñu jàngal bañ ñi ar mu yar ñu bañ ñi nër waaye mu yee ñu ban ñu jar kon fii la jaar ci xam-xam ba lu ne ci moom si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moo ko ci def moom Thierno Birahim Ndaamal Daaru mu fees dell mm-hmm. féete sëñ tubaab fenn fi nga xam ne kenn féetewu ko fi mm-hmm. doon loxol nday jor boroom Touba mm-hmm. sëriñ Touba dara wax ak Cheikh Ibrahima la si lam yu faarix nii laa fii sixariki wala fii kibari Thierno mi nga xam ne mosula tàqalikoog man borom Touba Xaadim Rasul ci bi muy ndaw ba bi muy mag mosta tàqalikoog man kon foo ko fekk dafa takkoo si Ahmadou Bamba xaadimu rasul mhm. bi muy ndaw ba bi muy mag musul tàqalikoo ak si Ahmadou Bamba xaadimu rasul ba pare fees dal nag gëm sëñ Tuubaa lool wóolu sëñ Tuubaa lool mhm. fu sëñ Tuubaa dem mooy gàddu satale gi mooy gàddu der bi mhm. nekk ci wetam moo tax sëñ Moussa Ka ni njëkk a sukk mujjee jóg gisoo moo njëkk a sukk Cerno Birahim ba pare mujjee jóg xoolal xoolal pourtant moo fa jiitu ñëpp xam nga avant yoonu murit la woon la la fii teg sëñ Tuubaa keneen mhm. koo fi gis mu ñëwaat yoonu murit a ko booleeg sëñ Tuubaa dëgg Kajoor la ko wootee mhm. te Ceerno Birahim ba muy sàkkatal sëriñ Tuubaa ca mbakk Kajoor amul fukki at kon moom bàyyi ma leen boole woon mhm. mu doon loxol ndeyjooru Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul lu sëñ Tuubaa daal lu ci def lépp Ceerno moo ko daan defal si Ahmadou Bamba xaadimu rasul kon suñ xaadim xam naa day delluwaat kàddu gi tubaarkàlla <laughs> <laughs> macha allah euh, dafa naa waxtaan wi ubbeeku na euh, lu ci bari it leer na ndax ki nga xam ni moom la ñuy waxtaanee tey di maam Thierno Ibra Faty euh, dégg ngeen suñu xaadim leeral na ci lu am solo wax nañu fi mu ganee jamono foofu ca Poroxaan ci weeru gàmm fukki fan ak juróom ci weeru gàmm waaye wax na wuy juróom yi tedd yi di sëriñ Mor Anta ak soxna Faty Issa Euh, taxawaay yoo am solo yooyu waaye dégg nga sëriñ bi ak digganteem ak maam Thierno mu mel ni diggante bu yàgg la diggante bu sori la euh, des na ndax am na lu mu ci wone waaye am na lu nekk ci kanam ndax dégg ngeen ni moo ko jàngal waaye dégg ngeen nit moo jàngal njabootu borom Touba gis nga loolu kéemaan dëgg la sëriñ bu mag bi moo jàngal Birahim Birahim jàngal njabootu sëñ Touba <laughs> loolu dinañ ci dikkaat sëñ Xaadim euh, bu ko defee rek dañuy dégluwaat xasida ak sëñ Modou Fall Euh, mu xool lum ñuy indil bi ñu bëggale ko soppe yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci jotaay bi incha allah اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمع القلق نيرانا ولتكفنا يوم جمع القلق نيرانا اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمع القلق نيرانا هب لي بفلك كوني سرمدا فراحا للمسلمين وقلد فيك بشرانا ملكني اليوم سيء لا يفارقوني من البشارات في دارين جيرانا عليك وزني بأفكار نجيء بها من الفيوم الواد الذي تنصب إضانا لسوء دواما فتوحات أكون بي بسالما بيود الإسلام قد أنا أنت العليم الذي علمت إثبتاما فاخو بتيك ميضانا فميضانا كون لي اليوم تيسيرا يساهلني صعبا بجدي ما قد كان ودانا سبد جناني وسد بالمنطق وخيمي لحنا بإقدام ما قد كان ودانا يسر لي اليوم يا واب جملة ما أرجو وهب لي تقديما ورجهانا ربيتني ربي في الأعداء مقريبا حتى رجوعي للأوتان قد أنا ملي بيدك ما يختار من كبيلة مكر ولا سلاب واجعله ميزانا ملي يا ربي ما فاق المنى كراما يا من يسير من قد جاء سبعانا ناجاك مرتجيا الله تقيبه ولتكفني يوم باس القلق ميزانا حيب رجاء الذي يغلق في أبد من عميق وكان الحج ميزانا لا تبع معك بل القتال في كل ما فيك ينوي منه ضنزانا قلب قلوب العباد لنصرتي في البر والبرية من إن لنا ناجاك مرتجيا مرام في عجل يا خير من أماه من كان عجلنا أنت المعيد الذي أقل بقاء بي دنيا وأخرى فاطل العود مولانا تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا ما عند من لي دهاجتي لنا فتاه وهاب يا رزاق liftah wahab li warzuqni bi kullanan dayqi lazil ajilan bil bisri mahmadadi hatta ukhimma lidi billahi arkana yasir rujui lituba wahmini waqini azal wara waltutib لي سما إسكانا لك السما والأراد والهواء بلا مشارك ليرود من سركه بانا أجب وسل بتاس لي من على سند محمد والتهب لفائقا بانا أجب وسلني بتسليم على سند محمد والتهب لفائقا بانا حمدي وشكري لمن من كل به السارة لوردا دون سوء تنين بسر سارة لو سناء وريدواني بلا ثقة مسقى بلي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى بار مكرمة بنا استحرنا وفي هجم منصارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارتي فارقوا دارين أو سارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارتي فارقوا دارين أو سارا subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin macha allah macha allah macha allah jërëjëf sëriñ Modou Xaban Fall tubaarkàlla tubaarkàlla ñëpp bég nañ yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla barkeel tubaarkàlla ñëpp bég nañ ku ko dégg ni muy jàngee ngeen xam ne tubaarkàlla macha allah def na yitte yu mag ci xaside yi wax dëgg yàlla yal yàlla guddal sa fan bu ko defee ñu siyaare bu baax sëriñ Moustapha Fall Kara Euh, mi nga xam ni moo fi représenté Serigne Modou Kara ak njaboot gi yëpp macha allah ci taxawaay yi ñoom it tubarkàlla euh, ci guddi àjjuma yi foo dem gox boo leen fekk rek sa xol sedd ci yëngu yu am solo yi nga xam ni moom la ñuy yëngu ci yoon wi euh, ñu nuyu bu baax jëwriñ Serigne Modou Ngom moo it nekk fii nekkal fi Cheikh Ahmadou Kara noo nooree ni waaye bokk ci njabootu Cheikh Ahmadou Kara mbokki ci njabootu sëriñ Babacar Ngom ñu nuyu ko bu baax ziar ko bu baax nuyu Serigne Fall Ngom. Zikrullah nuyu Papa Ndiaye Kara moom it ñu nuyu ko Bayance ngoom ñu nuyu leen bu baax euh, jox leen seen wàccuwaay ti euh, di leen ziare ci màggalu daaru gi ñu jëm waaye di nuyu sama nijaay maam bu Thiaw moom it mu ngi foofu ci quartier Serigne Ablaye di bu baax di sama nijaay di sama xarit nijaay maa ngi lay nuyu bu baax te di leen ziare Serigne Khadim Sarr borom diwaan bi moom it mu ngi foofu ci euh, Mbambara ñu nuyu ko bu baax ziare ko jox ko wàccuwaayam nuyu mboolem njabootu Serigne Ablaye Yàqini yëpp. sëriñ Cheikh Mbacke mbay moom it ñu nuyu ko bokk ci jëwriñu sëñ Modou Kara yi nga xam ne ñoo nekk fii ci diwaanu Thiès ñu nuyu leen bu baax ziar leen xam naa dañuy dikkaat léegi rek ci waxtaan wi njëkkanteeg li des ci waxtu wi euh, sëriñ Xaadim xam naa di nga ñu dikkal nag euh, ci euh, maanaam sëriñ maam no Birahim daamal Daaru wuuti yi nga xam ne ci barab yu bari wax nga ko sànq wuute na fa magam ju tedd ji ba ci ndar biñ ñu fa sëriñ bi moo fa njëkk a dem. Euh, ci xeet yu demee noonu ak taxawaay yi ak sancub daaru mussi waaw euh, bëgg naa nga dikkal ñu ci ab tënk rek sancub daaru musti euh, ndax mu ngi gënee jamono fi nga xam ne mooy poroxaan waaye tey ñu ngi koy fàttalikoo ci daaru musti waaw loolu bëggoon naa ci mbokk yi ay leeral ñu xam loolu yëpp lan moo waral sabab yooyu jërëjëf sëñ Xaadim mm-hmm. jërëjëf sëñ Modou ci njàng mu am solo mi waaw lay ndeysaan xasida nga doon jàng di xasida gu daw yaram da xasida karam naa ndeysaan di gu neex xasida goo xam ni donc ah. dafee ca fee ca làmbar na ndeysaan waaw nekkoon ci ay xat-xat ak i ba tax mu naan day xi asil waa mm-hmm. ah, jilan bil bisri ma madadi mm-hmm. lu tax mu ni xatta o xiima li mm-hmm. diinillaahi arkaan allahu akbar nag yasir rujo ay li tuuba wax mi ni waxi ni asal wara waltu tayib li sama iskaan allahu akbar kon sëñ xaadim macha allah <laughs> ceerno bi raayim daa taxaw ci lépp wax nga ko léegi barab yu bari moo fa taxawu borom Touba. Serigne Touba nag da daan wax ni dénkaane ka nga wóolu. may kala neex. jaay ka am njëg. dénkaane ka nga wóolu. waaw may kala neex. waaw jaay ko am njëg. jaay ko am <laughs> daani la ma doon dénkaane lépp dénk naa ko Thierno bi ayib. est-ce que. ndax lam ko dénkoon ba tey kenn du la wax ni ko ndax gis nañ fu ko sëñ Touba jëlee déedéet. déedéet. kon la ma doon dénkaane dénkaane naa ko Thierno Birahim allahu la ma doon maye may naa ko maam Anta Mbacke borom gaawaan ak Daaru Salaam dërëm li ma doon jaay lépp nag mhm. une des grandes figures du mhm. intelligent maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko jënd ci ma Babul Mouridine Babul ma doon jaay lépp mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall jënd na ko li ma doon dénkaane lépp dénk naa ko Thierno Birahim waaye li ma doon maye lépp may naa ko maam Cheikh Anta Mbacke borom gaawaan ak Daaru Cerno dafa am wàccuwaay bu rëy ci sëñ Touba. wax na ni bis boo demee ci garabu alxaaji Mbàkke da koy nettali. Mhm. nee na bis dañuy toog di buntu nekk sëñ Touba di waxtaanee gaay yàlla yi. Mhm. waaleykum salaam wa rahmatulah di waxtaanee gaay yàlla yi. Mhm. di ba ci yàgg sëñ Touba ni téléporte yi ni ana ko ngeen di waxtaanee. ñu ne ko Mbàkke ñu ngi waxtaanee wali yu sëñ Touba ni ko koo ci xam mu nar a départ sëñ Touba ni ko tàmbaleel ci sa bopp. nee na ci laa xamee ne wali yu laa. Mhm. nee na mu tëdd mu rëdd ci suuf ni ko Mbàkke kon sa kër bëri na wali de mu ni ko koo ci xam mu rëdd ci suuf ni ko Cerno Ibrahim sëñ Tuubaa ni ko faral aw turam ndax Cerno moo ëpp doole waliyu mhm. xanaa xamu ne ëllëg yowmal xiyaam fa ma yàlla di fa lay wooye Cerno ñu fay fay ko ñu ànd dem mu rëddaat ci suuf ni ko maam Cheikh Anta mu ni ko faral aw turam ndax maam Cheikh Anta minal jannati ilal janna na laa ko jëlee te fa laa koy delloowaat mhm. moo tax mu daan wax ni maam Cheikh Anta ci bànneex lay àggee ci yàlla waaye man borom tubaa ci metit ak coono lay àggee ci yàlla. est que daal di daal ci suuf ni ko ak kan mu ni ko sëñ ma numbe borom dendee xabaa mu ne ko faral aw turam ndax ma numbe murid saadix la te murid saadix moo ëpp doole wala. waaw mu ne daal ci suuf ni ko kan mu ko Sidi Ibrahima maam Cheikh Ibra Fall. Mhm. mu ko faral aw turam ndax jamono ju ma ñëwul Sidi Ibrahima Fall mooy àtte jamono jooju. Mhm. kon maam Thierno daa am wàccuwaay bu rëy sañ sëñ Tuubaa. xam nga sëñ Tuubaa daarul mooti rek de. Mhm. koso moo ko sanc ñaari yoon la musa tiim te bi mu amee ndox fay na ko ba ca njëkk mooy ba muy sàcc ji koso ñaareel ba mooy ba muy joxi sëñ Masamba awtur waaw ba mu ko jox awtur mm-hmm. ca la musa tiim te booba ndox mu amul ak bi muy sànc koso kon sàncul daarul mooti kat mm-hmm. daarul mooti ci 1912 ba 13 ci la ko sëñ baa jox ndigal mu dem sanc ko 40 kilomètres ci la ko waxee woon ni na mu ne ko Mbàkke mu ne ko lu la fekkul daaru dama ko amul mm-hmm. na mu ne ko Mbàkke mu ne ko lu la fekkul daaru dama ko amul mm-hmm. daani ko day fa ngay nekk fa ngay dund toog ba waxtu bu la soob te doo fi tàggoog lu la soob mm-hmm. moo ba mu toll ci tawatam di yóbbu ci nes euh, ci weeru Soxbaan mm-hmm. laaj ni ko xanaa sëñ Tuubaa waxu woon ne da ngay toog ba waxtu wu neex waxtu wu soob mu ne su ma soobatul nag est-ce que <laughs> mu ne su ma soobatul nag ci weer wow ci Soxbaan ci weer wi ci la tàggoo moom Cerno Birahim ndar gi nga wax moo fa demal sëñ Tuubaa convocation yu bari acté wul sëñ Tuubaa waaye bi mu yabalee Thierno Birahim mu dem sëñ Tuubaa dana ko lettre bii ma lay jox sa loxo ak loxol gouverneur. Mm-hmm. maam Thierno ko am fit la. Mm-hmm. moo tax ba mu koy laaj lettre bi dañuy ka ma sama mag ju baax ji nee na ka ma yónni. Mm. nee na loxoog loxo rek. allahu ne ko de xaw ma foo jóge waaye yow mi ku am fulla nga. Mm-hmm. li ci gën a yéeme bi mu jógee ba tàggoog ñoom di dem dañ koo bëggoona a réeral ndeke moom ilmul falak bi mu jàngoon moom la jëfandikoo tegtaloo ci biddiw ba ak kon kooku kenn mënu koo réere Thierno Birahim bi mu dikkee fekk euh, sëñ Touba jot na ndigal war a dem mm-hmm. ci tënk jot na ndigal war a dem mm-hmm. bi mu génnee ci jàkka yi ci la laajte Thierno ndax àcc na ñu ne ko mbàkke ak seegul nee na bi mu jullee bay duggaat ci kër gi ci la gis ceer Thierno Birahim di bàkk di bàkk di ñëw mm-hmm. nee na bi mu dikkee sëñ Touba da lëng di dugg ak moom ba ci yàgg day kàddu asamaan wax ko ne ko yaa waxoon ni mhm. boo duggee ci biir kër gi boo génnee ba jëlee pare doo duggaat ci biir kër gi ndax araam na ci yow fi taxaw ci bunt bi la taxaw yónnee lu bagage yi mhm. Mhm. daal di Cerno war a rendre compte li mu jëlee dara wax ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ni ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko dara matumaa wax xanaa xamoo ne det mbeer bi nga taxawoon xeer bi nga taxawoon xorondong bu doon dox ci suufu xeer bi maa ngi jàkkaarloog moom man borom Touba. kon jot naa ndigal damay dem. daani ko teer mu ne ko Mbàkke mu ne ko xanaa xamoo ne sama digganteeg Touba dafa laaj saab bu mag. ak ndox mu bari. ma dem fóoti ko te delsi daani ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne leen ma war waaye ndekk fas yu sëñ Tuubaa dafa war moo tudd aw nu laay ndimbalal yàlla. Hmm. ñu génne ko bagage mu jël loxoom day joor ba teg ci bopp Cheikh Mouhamadul Moustapha jël bu càmm bi teg ci bopp Cheikh Mouhamadul Fadal lu mu wax dénk naa leen yàlla mhm. dénk naa leen yenent bi waaye dénk naa leen seen bàyyi cerno bayit boobu bu daw yaram boobu nga déggoon sëñ Tuubaa naan xusuuri xalat mhm. wal ahlu an ni tafaraxat mhm. li madxi lazi anhul madixu xasiru boobu ku fi ne sëñ Modou Moustapha ku fi ne sëñ Fallou Mbacke kan moo fi ne sëñ Baara Mbacke mi feeñee Touba boobu Mouhamadul Basir gëneegul jamono ndax bi mu ak seen ndar lañ ko wax ne ko soxna Fatimata maam yeewuku na mu nañ ko tuddee Mouhamadul Basir te labal ko xar mi ngi koy sunnaalee moo ngi dem moo ngi dee sa bu dikkee dana ko fay moom sëñ Moussa Kana ba mu taalif xas dëgg Asiru sa moomu at la am sëriñ Basiru ba mu taalif banaan xaruuru ndawal borom dar woo ko mbër ma muuru mm-hmm. keroog la Seex Bamba njëkk a feeñal xar baax ngir Modou Ndiaye maa bii la wolu cim taax wan ko assiru ni ko yaa may seere damay liggéey lee ma del ci jéeri yow ma xiyaamati may ramb ëxlul bari moo tax damay ramb ji ëxlul baxri hmm. te fekk may del si yow doo fi faatu hmm. dinaa la fekkandar li ngay ayaatu mu jël njaboot gépp lépp dénk ko Cerno Birahim Cerno dem na bay jël njabootu Sëñ Tuubaa gi di leen dugal ci am sàq hmm. ngir mit sëñ Modou Moustapha tawat sëñ Fallou tawat sëñ Baara Mbàkke tawat cerno ca la ko aal jàppe woon nii lii ma sëñ Tuubaa dénk bu ci kenn naree manqué na yàlla jël sama bakkan man cerno baa mu jël sama bu sama way jur soxna faati isa baa mu jël sëñ Modou Awa Balla mi ma mi ma gisagul waaye li ma sëñ Tuubaa dénk bu ci dara manqué ñaan ngaa nangu moo tax am mbëkk néegam moo wàcc moo moo génn jamono cerno Birahim lii ma la boo demee ci marché borom daaru mm. sëñ Moussa Ka woy na ko fa cerno Birahim bind lettre envoyé ko sëñ Tuubaa ci géej daani ko Modou Moustapha daa tawat hmm. Mouhamadul Fadal daa tawat hmm. Mouhamadul Lamine daa tawat hmm. inna cheikh Mouhamadul Moustapha bi yetti rasulillahi fal yafaali daa am masa abi loolu ko sëñ Tuubaa tontu daani ko Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko sëñ Modou Moustapha yéen gën a jamono yenente bi moo ne ma may ma ko moo tax ma féetale ko ak yenente bi kon bu tawat ji xoolee ba yenente bi xoolee ba tawat ji faat ko ñoom ñaar inna cheikh Mouhamadul Fadal bi yeddillahi taala fal yafaali daa am masa abi cheikh Mouhamadul Fadal bi mu gën a jamono yàlla moo ne ma may ma ko kon ñoom ñaar la bu xoolee ba tawal jëfaat ko kon ñoom ñaar inna cheikh mouhamadul amin mm-hmm. bi yeddil quraanil karim fal yafaal daa ma saa biki mm-hmm. sëñ baara bi mu gënee jamono alxuraan moo ne ma may ma ko moo kon bu alxuraan xoolee ba tawat jëfaat ko kon mm-hmm. ñoom ñaar la allahu akbar sëñ nekk ci géej gi maam Thierno Birahim nekk ci ay métti xam nga ku dem bay jël njabootu sëñ Tuubaa gi dina dugal ci am saq boo métti woon na lool xam nga Thierno boobu ñaata at la toll fanweeri at xam ne 30 ans sëñ Tuba dénk la yoon bi xam ne kooku jàmbaar la. fanweeri at. Mm-hmm. sëñ Tuba bi muy dem ci géej gi 40 ans net la toll. Cerno Birahim toll ci fanweeri at mu dénk ko yoon wi. mbooleem li ci gën a yéeme laaj bu nit war a laaj sëñ Tuba bind réponse jox Cerno Birahim. Mm-hmm. ba bi réponse yi di jeex ci la sëñ Tuba di ñibbisiwaat fii. moo tax sëñ Moussa Ka wax ni Bamba nii hmm. na Ceerno Ibra Faati di gàgganti hmm. man Bamba nag bisu pénc ba lay lijjanti allahu kon fii ci àdduna <laughs> Ceerno Birahim mooy gàgganti <laughs> waaye tamit bisu pénc ba ëllëg yamal xiyaam Sëriñ Tuubaa nee na moom lay réglé ji moo tax lu waay di musa laaj hmm. danaan demal laaj ko Ceerno lu waay di joxe mu ne joxal Ceerno bu ma kenn jox dara jox leen Ceerno mi nga xam ni mooy sama loxol ndeyjoor Bamba Xaadimu Rasuul sëñ Tuubaa bi ni ko lettre boo xam ni sëñ Tuubaa ko ceer na direct ni ko lettre bii bu sëba tegee na nga xam ni ci yàlla bàyyi ko jaar ci yenent bi jaar ci man xaadim rasul pour ma jottali la ko yàlla gërëm na la yenent bi gërëm na la gërëm naa la man si Ahmadu Bamba xaadim rasul daane Cees xalimaam moom sëñ Tuubaa bi ni wax ni bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. mata taxa aynayka ala hadihi alxuruf mm-hmm. fa tayaqan bi annaka bi anna katibaha radin anka ridan mm-hmm. laa suxta baadaha abadan wa bi annahu taalibun min allahi tabaraka wa taala laka maa yaxbituhu jami am salik kon fa tib nafsan wa xarri aynan wala tasuuk fi kawni haza min rabbik sikk sàkk jërna biram ci lettre bii mën a bind yàlla la jóge mu ñëw ci yow direct yàlla gërëm na la yenenti bi gërëm na la waaye gërëm naa la man Cheikh du Bamba xaadimu rasul li ci gën a yemee topp sëñ Tuubaa ci lépp sëñ Tuubaa day tuddee yenent bi cer na tuddee saxaaba yenent bi mm-hmm. bari seetlu sëñ Tuubaa mm-hmm. Mm-hmm. lu mu am yenent bi la tudde maxat maxabati al muxtaara sayidana mm-hmm. xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaa ulaku abdan xadiman lako muskaani li sanada waaye nag seetlu daa bàyyi ak sëñ Tuubaa muy tuddee bi waaye moom muy tuddee saxaaba yenent bi eh. doo dégg miqdaat doo dégg abbas doo dégg zubayru doo dégg eh, abbas doo dégg zubayru doo dégg xamzatu doo dégg tamit eh, xaydara loolu lépp njabootu Cerno Birahim daamal daaru la ni sëñ Tuubaa féetee ak yenent bi mhm. di leen tuddee ay doom waaye ma féetee ak saxaaba yenent bi mhm. te tur yi ma la wax yépp boo ko bëggee xam boo demee ci ca tuxfatul mutadarriin mhm. fi tawassuli bi asmail mufadalin da nga ca fekk tur yi ma la wax kon Cerno Birahim topp sëñ Tuubaa ci lépp macha allah jàmbaar jii ñuy wax Cheikh Ibrahima Diop Almashari képp kuy gëstu yoon wi xam nga man mi di wax a yow am naa ñetti junni wayum way sëñ Tuubaa lépp arab la ko wax ñetti junni way yu mu way sëñ Tuuba baxru yëpp fukki baxru juróom-ñaari yëpp way na ci sëñ Tuuba mm-hmm. te mu xaddamu tiijaan la woon fees dell ak xam-xam bi sëñ Tuuba jógee ci géej gi mu ni comme que dem na ñëw delsi mm-hmm. te tubaab bi mënuñu ko dara dama koy siyaari ji mm-hmm. pour wax la wilaayam bi mu dikk fekk dafa am boru juróomi téeméer mënu ko fay mu wër wër wër mun ta fay bor bi mu dikk ba ci gentaatu garab mu gas ba mu xóot ni lettre bi maa ngi koy bin juróom ñii nañ ma ko fayal comme ko dëkk bi daa dëgër te wër naa ba sonn. Hmm. nañ ma ko fayal. lettre bi mu ko bas ba gasee ba mu xóot di ko suul kenn gisu ko diggante ak boromam rek. est-ce mu saatu garab mu daal di suul dem. Hmm. daan téeméer bu njëkk bi jox naa ko Aboubacar. Hmm. fa alayya adduyunu ixwatin xasamtuha baynal kiraami la an la an yaqduha mm-hmm. fa alayka yaa muxtaaru awalu qismatin mm-hmm. wa alayka yaa siddiqana saaniha mm-hmm. wa alayka yaa omaru saalisa qismatin wa alayka yaa osmaanana taaliha gisoo noonu la ko waaye est-ce que aboubacar omar osman aliyin ak seen kilifa muhammad sallallahu alayhi wa sallam musul mu dem bi sëñ tubaab jógee ci géej gi ba jaar fi mu jaar yëpp ak ci sanuusi mu ne comme que tubaab bi yóbbu nañ ko mënul ko dara kon xaaral ma dem siyaar ko allahu akbar bi mu dikkee ba nuyu sëñ Tuubaa bay génn sëñ Tuubaa ni ko waxee ñu Ibrahima Diop bi nekk ko sëñ Tuubaa moo la woo dañ damaa xam ñu ko am ah moo la woo de. Mhm. bi mu dikkee sëñ Tuubaa ni ko nafa gee juróom-benni téeméer moo ci ne. Mhm. ndax kooku yaral xafaaya bi ay aynil xal bi zakiratan mm-hmm. kama yu saahidu ma taxtal ak naati mm-hmm. juróom benn téeméer moo ci nekk mm-hmm. génneel benn téeméer bi tegal ma ne sa bor bi nga amoon sa digganteeg sa boroom te nga gas ba mu xóot nga suul te kenn gisu la kurul yàlla bi ma nekkee ci géej gi sama loxo bii lañ ko teg dama doon xaar pour del ci Sénégal gis la jox la ko am Aboubacar ma yónnee ci yow téeméeram a ngi nii am Omar téeméeram a ngi nii am Ousmane téeméeram a ngi nii am Alioune téeméeram a ngi nii Moustapha nag maa ko fi présenté ndax moom mooy le prophète universel. Mhm. man mii maay le serviteur éternel du prophète kon téeméeram a ngi nii. waaw akbar mu ni daal leen daanu. Ah, waaw jël boppam jox ko Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul kooku nag mooy xool ceer na ba ci ak mu ni ponkali yëpp xam naa leen. Mhm. waaye ponkali ponkali. Mhm. mooy maam Thierno Birahim Daamal Daaro <laughs> macha allah <laughs> jërëjëf sëñ Khadim tubaarkàlla tubaarkàlla dafa daa tey moom xol yëpp dina mànd ci Ibrahima ndaamal daaru si <laughs> xaalim jërëjëf yàlla yàlla guddal sa fan am nañu mbégte lool tubaarkàlla am nañu mbégte lool ci waxtaan wi ndax tege na ci xam-xam waaye am na ay tegtal yu leer yoo xam ne indi nga ko uh, bari waa na lu ñu daan dégg tey gën naa leer bari waa na lu ñu daan faraatu tey gën naa leer waaye benn bunt rek laa bëggoon ñu dugaat ci uh, fàttaliku guur yàlla bu liggéeyal boroomam ba laq ay ngërëm ba bàyyi koo fi mm-hmm. ñu koy fàttaliku mm-hmm. naka lañ ko war a fàttalikoo. comme ni niñ ko ni ko lislaam diglee rek. ñoom seen lépp génnul yàlla ak yenent bi. Mhm. alxuraan. Mhm. ak xasiida mhm. barab yooyu ni ma ko waxee ci màggal gi laa koy wax xam ni nit màggal gi ñett nii la. kii daa màggali. kii màggal si kii màggal. kenn la ci sëñ Tuubaa soxla. mooy ki màggal si ba pare màggal. ki màggal màggal si ba noppi màggal. waaw kii daa màggali daa gis gaa yi dem rek mu ni sama gaa yi maa ngi dem. waaw xamul lu ko yóbbu. boo ko laajoon màggal gi la la xamul. Mm-hmm. kii ni koo ko woo téléphone mu ni sama waa ji màggal si naa maa ngi si Touba ci dal bi. màggal si na màggal si na. Uh-huh. kenn la ci sëñ Touba Sow mooy ki màggal si ba pare màggal. Ceerno nu koy fàttalikoo mooy ci jàng alxuraan. Mm-hmm. ndax moo ko daan jàngal borom Touba. Mm-hmm. ndax bi sëñ Touba jógee ci géej gi nis fa Soxban ci la ndaje moo waral màggalu Daarul Muxti gi. ndax sëñ Touba moo ne Cheikh Issa Dieng dama nga wol ma Ceerno. bi muy dikk nag bay dajeeg sëñ Touba. mbégte moomu tëjleeg fukk fan ak juróom ci nisfu soobaan. Mhm. mooy màggalu daarul mawti. la kon ni ñu koy fàttali mooy alxuraan. Mhm. jàng xasiide mhm. waaye bernde ak ñaanal ko nag. ñaanal ko nag yàlla xam nga yenn saa nga dégg ñu ni ëpp naa ñaanal. déedéet ñoom ñëpp a soxla boo demee ci masaal gi sëñ képp ku ko yër nag ma ñaanal. waaw akbar dégg nga nag ma gis koo xam day nekk ca ñaanal ko ba pare ñaan soxla ci moom ndax barabu nangu kaay ñaan la. ndax sëñ Tuubaa nee na ci sëñ Moussa Ka wax na ni màggal gi bi ñu koy def pour nga xam ne alxuraan ak xasiida la sëñ Moussa Ka da ko woy ne mm-hmm. bu dikkatee ne ñëpp defi géew mm-hmm. tudd yàlla bañ a gi mm-hmm. ñu ne ko ni ñu koy defee mu ni jësbul xulub muxaddama mhm. mu waax yi bokk miimiyaat mhm. ñu jox ko gaa yi neexi baat ñu tagg ahmadul mbakki kon nag bis boobu bisu ngërëmal ku am ngërëmal yàlla la ah. te sëñ Tuubaa ku mu gërëm yàlla la gërëm kon bis boobu ku fa dem jàng alxuraan jàng xasida mhm. fas fa say soxla yàlla mën na laa jéggal bàkkaar yi àdduna ak ju àllaaxira ndax borom bis ba attan macha allah macha allah sëriñ Xaadim Samb tubaarkàlla am nañu te lool ci mbax ci waxtaan wi euh, tey xam-xam dëgg feeñ na fi xam-xam dëgg feeñ na fi waaye ñu fexe ba bu ñu demee ñu màggali te bañ màggal si. comme ni nga ko waxee <laughs> waaw ndax loolu mooy tax ñu jëriñu nag. waaw ndax dem rek nit ñaa ngi dem rek. nga foofu sa saak ñawlu sa waay ah sol sa mbaxana mel ni xaadim sumaare <laughs> ah dem di topp mbedd yi rek du ko génn ah mel ni ni ma defoon maag aas ak euh, yaay faatu waaw dañoo dem Touba rek mbedd mu ne ñu dugg fa rek <laughs> mel ni dañoo màggal si xam naa loolu it ñu bàyyi si xel waaw ah, bu nu màggalee lu ma góorgóorlu ci jàng alxuraan ak xasida waaye ñaanal ki fi bàyyi ko euh, te siyaare ko ñaan yàlla taas ñu ci barkeem loolu dana tax ñu am lu màggal kon nañ ko nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bu ko defee màggal gaa ngi noonu spécial euh, wàccaayu màggalu Daaru Musti la woon Serigne Xaadim Sàmm xam naa dañ lay bàyyi rek nga am mbokk yoo siyaar ah, ñu def tàggatoo bi incha allah Euh, jox jox nit ñi rek xam naa ni euh, ca daaru incha allah. waaw ñu ngi sant mboolem koo xam ne ñu ngi topp émission bi baa ngay suivre télé bi rek. Mhm. ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaar di mhm. tuubal boroom xam-xam yëpp. Mhm. ku ci gis daal lu mat a defar nga dimbaliñ ci rek. xam ne seen bu doon nap nabi rek. waaw ah, di santaat sëñ Tuubaa bu baax. di la sant bu di la gërëm ci invitation bi nga xamante ni def nga ko tey jii. yow rek mënoon nga ko defal sa bopp. <laughs> waaye yaatal ak baax. xol bu rafet. moo tax nga dalal ñu jotaay bi. kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant cameraman yi hmm. nga xam ne sama waaj moom barki dem fi ma doon waxtaanee rek moom ni ah. moo ko doon filmer ba mu woon sax su ma dikkee tey jii dinaa ko man ko nuyu baax sama waayi bopp jee nga xam ni nga ah. war a ànd man lay jël si nii ah, sëñ Ibrahima Kane naa nga xamante moom ku baax sëñ Ibrahima ñu ngi lay ziar bëgg sëñ Touba ñu ngi koy ziare bu baax ndeysaan bëgg nañ ko kon Xaadim Rasul ko sëñ Touba ci lay jeexal alalam ci lay jeexal dooleem ndeysaan tey ji mu ngi nii ñoo war a dem ba Tiwaawoon lu mel nii lañu fay defee Adama Siré moo war a def cant <laughs> léegi nag soppe ñu ñoo ko fa war a teewal war a def waxtaan wi moom mii moo fa war a teewal soppe kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jéggalu coono yi di nuyu waa télé bi yëpp macha allah sant bu baax tey gërëm wasalaamaaleykum rahmatullahi taala waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf euh, sëñ Xaadim tubaarkàlla am nañu mbégte lool te di la ñaanal xam naa nan ko bàyyi xel li wax ni mag ñi euh, ku ci mel ni Serigne Abdoulaye Thiam nee naa ko keroog am ngeen ndoro ndax dëgg yàlla xale yi moom tubaarkàlla <laughs> at yu bariwul waaye xam-xam bi mate na ko te rafet na nag xam-xam bu rafet la ñu yor macha allah waa ji tamit moom ma jël xéewalam bi Siré Marigo waaw Siré Marigo moom da daan la nag ab la mooy borom ëttu nabi waaw yàlla mooy borom ëttu na na jàppaat daje ah, nga ñëw seet ko ci émission am ëttu nabi waaw bu ko defee ngeen gën a yaatal ci nabi nag ah, Siré ngeen gën a yaatal ah, defee sëñ sëñ Modou ñu bàyyi la nga siyaar mbokk yi rek. kon de bu ko defee ñu ngi sant ñëpp rek di eh, ñaanal di leen ñaanal tamit. di ziare tamit Serigne Hamsatu Mbacke. nga xamante ni. Mm-hmm. maanaam suba sax dafa wootee guddi ajjuma foofu ci daaru Muxti. tubarkalla nga xamante ne da koo jaglal borom daaru. macha allah ñu koy defee foofu ci penc mi. est-ce que mu ciy soññi mbokki taalibe yëpp ahlu xasida ñëpp. Mm-hmm. ñu ngi koy defee foofu it mooy ñëwee nekk ci alxuraan jeeg xasida yi. ak ak ak ak kuréel gi nekk fële di di jàng. Hmm. ba daanaka bañ yegg ci ñetti waxtu. ñu ñu ñu ñaan kon day mel ni ñu ngi ci soñ ñëpp rek. macha allah képp koo xam ne man nga fa teew suba. Hmm. incha allah kon ñu ngi ci woote ñëpp. di siyaare tamit sunu xarit sunu sëriñ. Hmm. sëriñ Ahmadou Mbakke. maam ma ñu ngi koy siyaare di ko jox wàcc waayam. mu doon koo xam ni ku ràññeeku la. ndax jataay yi ñuy def. bari ci plateau yi yoo xamante ni dañ ko fay gis. Mm-hmm. mu doon koo xamante ni eh, ku baax la. dëgg yàlla ñu am daayira boo xamante ni moo nekk fii ci Hersent Ansaarul Xadim. Mm-hmm. nga xamante ni ay taalibeem ñoo ci nekk. waaye ñu doon ñu baax lool waaye mm-hmm. ñu am ñu ci site rek. Mm-hmm. sunu xarit sunu lépp nekk ba Espagne muy sëñ Mourtala Fall. ñu ngi koy nuyu wax dëgg yàlla mu tax moom sama lépp la. Mm-hmm. mu nekkoon jëwriñ ji waaye saa borom daa dogal nag mu mm-hmm. dem féete ji foofu rek nekk Espagne. loolu rek waaye ñi fi desit ñoom sëñ ab Sow ak sëñ Mourtala Faye ñoom ñëpp ñu ngi doxal. wax dëgg yàlla doon jàmbaar lool ci daayira ba. dëgg yàlla ñu ngi jox rendez-vous daal ñëpp rek euh, Daaru Muxti xanaa bu ko defee. Mm-hmm. ñu uh, tënk rek xam naa ci uh, borom daaru xam naa <laughs> barkeelu ci rek xam naa way woo xamante ni bismillah bu gàtt lay doon xam naa barke borom Tuubaa bismillah waaw daaru amul morom ku am morom muy sa amul morom ku am morom muy amul morom ku am morom muy amul morom ku am morom muy sa borom yàlla ko def mu di borom mu ñu bégal ba aljana am kilifa li am solo ko amee am nga solo ko amul amoo solo ku wéerul yomba bama am kilifa indi am solo soo amee am nga eh. solo amul amoo solo ku wéerul يا بابا والتف بنا وخونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم وقضي بحاجة كل مسلم dañ ko addi borom Tuubaa addi borom xanaa di nuyu waale tamit sunu kilifa ndeysaan sunu lépp muy sunu waajur bay Serigne Fall ndeysaan nga xamante ni mooy sunu xalifa ñu ngi koy nuyu bu kilifa nekk ba Italie di siyaare tamit Serigne Saliou Mbacke Fall. Mm-hmm. mi nga xamante ni sama lépp la. ndeysaan mu bokk nekk ca marché bee. ku baax ndeysaan di ziare sëñ Moustapha Fall Omar Niane. ndeysaan ak ñoom daaw dafay. wallaay ndeysaan Uh-huh. ñoom Aliou ñoom ñëpp rek sëñ Seexuna Touré mi yor xasida yi daara xasida yi foofu ak Baye Daaru ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare di leen jox seen wàccuwaay wax uh-huh. wax dëgg yàlla di sant sëñ Xaadim Soumaré mi nga xamante ni wax dëgg yàlla moom it ci lu baax rek lañ ko xam wax dëgg yàlla bi may woo sa wax dëgg yàlla mm-hmm. fekk na ma nekk ci mm-hmm. teyu xaw a waaye moom moom day sama jëriñ joo xam ne sañu maa woo mm-hmm. ma koy gàntal di siyaare tamit sunu daayira ba nga xamante ni moo nekk ca marché ba wallaay ndeysaan muy Touba Wakana Xan nga xamante ni ca barabam foofu lañ koy ñoom ñoom sëñ Xaadim ak ñoom ñëpp rek waaw ak sëñ Modou Fall ñëpp rek waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare baax a baax a baax di siyaare tamit sunu mbokki taalibe eh. sunu daayira Ahmadou Monien ndeysaan nga wax dëgg yàlla ci lañ nekk ba léegi nit mm-hmm. ñi nga xamante ni daanaka mm-hmm. ñooy jëwriñ ji mm-hmm. xam naa ni buñ jógee fi sax ci jotaay bi ñu ngi jëm foofu ndax tey jii am nañ daayira di siyaare tamit suñu diwaan boobu la ñoo ñëpp ñu ngi leen nuyu di ji nga xamante moo ci nekk muy Baye Serif ak sëñ Xaarim nekk ba États-Unis ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare di leen jox seen wàcc waaye di siyaare tamit sama soxna si ñu koy nuyu waaw di ko nuyu di ko siyaare moom la rek di siyaare tamit Euh, soxna sëñ Saal bi nekk ca kër ga. Ah. muy soxna Assou Ndiaye. ndeysaan soxna Assou Ndiaye ak soxna soxna Seyna bu Mbakke. ndeysaan nga xamante ni sama soxna su mag la ak soxna ah. Fatou Mbaye Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare. tubarkalla di siyaare ñëpp <laughs> dimbale nga ñu si nuyoo beeg bi sax ndax sëñ Saliou Fall moom it day mag di sunu xarit wax dëgg yàlla di ku nu lool ku jàpp lool sëñ Saliou ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaara bu baax a baax di nuyu soxna si bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam euh, di yóbbante ab nuyoo rek ci jëwriñ Ndiaye Guèye euh, di ko nuyu di ko ziyaar ak ñoom ñoom Seydina Aline Badara ak ñoom kuréelu Majmahun Nurayni yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax sëñ Moustapha Diop bi nekk instant ñu nuyu ko bu baax moom it bokk ci jëwrin yi euh, nuyu leen ziyaar leen bu baax ci wàccaayu màggalu daaru gi bu defee ñu ngi nuyu mbooleem koo xam ne rek yéen a ngi ñu toppoon ci seen télévision biir di RTT TV Euh, ni ñu leen koy tàmm amale ci xew-xew yi nga xam ne ñooy xew ci euh, ëtt këru diine yëpp rek bu ci xewle ñu def ci benn édition spéciale waxtaanee xew-xew boobu dégg ngeen tey ñu ngi ci woon ci maam Thierno Birahim Daamal Daaru bu defee am ci mbégte lool ndax jotaay bi xam-xam feeñ na fi tuwaarkal la sëñ Xaadim jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko waaye gërëm mbooleem équipe technique bi nga xam ni euh, ñoom lañu ñu àndaloon ñu nekk ci technique bi ndax bu ngeen gisee image yi ak son bi muy baax am na ñu nekk ci ginnaaw caméra yi sëñ As ñu nuyu ko bu baax Euh, nuyu Yaay Fall euh, soxna yaa Faatu euh, di jàmbaar moom it kasu rajo bi mu liggéey ci liggéey bu am solo daanaka daa takk kawas yi rek dox dox dox ba mujj gi maama tontoo xaalim nañ soog tuuti nag bu <laughs> defee maa koy nuyu moom it di ko jaajëfal di ko encouragé ay xale yu sawar ñoo fi ne sëñ Moodu lu ngeen mën ci ñaan rek ngeen dooli leen ko borom ëttu na bi ñu nuyu ko bu baax moom it tey ñoo ànd jotaay bi macha allah ñu nuyu ko jox ko wàccuwaay bu baax waaye nuyu président Mamadou Seck mi nga xam ne moo jiite kër gi waaye jiite téeru Thiès yëpp ñu jaare ci moom nuyu téeru Thiès yëpp ñaan yàlla defal leen tawféex màggal gi ñu fekke ko at yu bëree bëri seen mbokk Khadim Soumaré ngeen àndaloon euh, ci émission bi ñu jox leen rendez-vous beneen jotaay incha allah.